salaamaaleykum salaamaaleykum seen xarit Ablaye Sall waa moo fi ñëwoon rek bëgg leen euh, yeggee ñaari information yu ndaw yoo xamee daf ñu dab temps yëpp nag gis na nit ñi daan ñu ko laaj lu bëree bari mais tey moom dañu signalé ay nit yu doon dem dakaar ñëw ba aéroport Malpensa embarqué wuñ leen parce que dañu yore green pass green pass taxul nga bañ a def tamponné tampon obligatoire la tampon mooy test Covid bi ñuy def itali boo xamee mooy PCR. mooy test Covid bi obligatoire kuy dem Sénégal muy xale muy mag muy ndaw muy liir ñëpp ko war a def da koy def boo ko deful boo demee aéroport duñu la embarqué dafa am ñoo xamee ne dañoo am grain pass dañoo vacciné wu ñaari dose yi ba pare am carte grain pass yaakaar ni loolu mën na remplacer test Covid 19 déedéet. gouvernement Sénégal da koy laaj gouvernement Italie même boo jógee Sénégal di ñëw Italie dañ lay laaj test Covid 19 72 heures avant ngay embarqué. donc ku ko deful ak ku waaj dem tabaski ji wala dara ngeen fàttali ko yónnee ko message bi wax ko mu dem defi ko parce que tey signalé nañu ñu bari ñu dem Malpensa mujj ñu leen embarqué parce que amuñu test Covid 19 nekkul ne compagnie bi moo bon nekkul ne daf dañ la bañ a mais loolu ñaari état yi ñoo ñooy demandé passager bu fay embarqué si beneen aéroport pour wàcc fa da nga ko war a am. am na beneen cas bu ñu leen bëgg signaler aussi am na ñoo xamee ne ay passeport italien la ñu am mu xam xale la mooy mag la boo yorul passeport sénégalais boo ànd ak moom a carte d'identité bu nekk valable waxuñu bu jeex de boo demee